bobu ñu ngi dogo navigation commerciale bi parce que datu 29 mars bi jàmboon ñewon na mais dafa doon def ben voyage test pour xol euh, travaux yi ñu doon def ci fleuve bi ndax euh, c'était concluant léegi euh, ci bobu luñu jël décision né le 9 mars bi na navire bi dina quitter Dakar pour ñew indi passagers yi nga xamanteni dañu war ñew ñëw ci Ziguinchor ak bagages yi nga xamanteni dañ ko amone pour indalé ko donc am nombre de passagers bu xawa am importance tuuti am 200 et quelques passagers ak plus de 50 tonnes. yoo xamante ni jëlee nañ ko Dakar indi nañ ko navir bi ñëw na ci jàmm ak salaam passagers yi ñëw nañ euh, def nañ voyage bi tranquillement donc euh, voilà ñi ngi ñaan ñëpp nañ ñëw euh, bateau bi dellusi na ci jàmm ak salaam te mi ngi def navigation bi normalement donc mi ngi noonu ñu ngi woo ñëpp daal ñu ñëw jël bateau bi incha allah